asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñu seetaan sur la TMS TV ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ba ak di nuyu le PDG de la TMS TV docteur El Hadj mu lay Sow di nuyu euh, personnel bi nuyu ñëpp tey nag euh, comme ni ngeen ko gisee ñu ngi fii ci EDK euh, e bi nga xam moom moo nekk ci Diass ah nekk ci yeeba alors yeeba nag bokk ci commune bu Sébikotane Euh, moom fii la Luc Nicolaï choisir pour defee fii jàkkaarloo boobu nga xam ne ni gannaaw bañ ko buggeen def ci benn salle de télévision te euh, Sen TV mujjul am ñu mujj demaat fi nga xam ne moom mooy arène nationale mujjul am tey nag mu def ko fii mais daal li ngeen gis daal mooy dispositif de sécurité bu extraordinaire moom moo fi am pour ñu mun a def face à face boobu nga xam ne nii boobu ba léegi ñu ngi koy wàcce combat bi le 13 le 13 euh, mars la ci arène nationale. yéen a ngi dégg nag El Hadj Ngagne Diagne muy wax tey journaliste yëpp ñu ngi fii euh, ci kanam tuuti nag. dinañ leen dégtal euh, entrée mbër moo xam entrée Modou Lo ak ki nga xam ne moom mooy entrée Ama Baldé ci combat royal boobu nga xam ne dina am le treize. donc euh, euh, ñu teg seen baaraam foofu le temps que ñu jëlal leen ay coulisses doo leen manqué dara ci li nga xam ne moo fi am tey fii ak grace à la TMS TV à tout à l'heure Joba, Khadija Mai, Borja Ya, Borja Ba, Ya Ya Joba. am bi sukur ma pirka dewe jabu sa jalla ko dewe jabu sa rolam le hoya jalla ko wasi la banyo ya yo ma haja jalla salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu assistance bi yëpp di nuyu ñi nga xam ni ñoo tax ñu teew fi en l'occurrence euh, monsieur El Hadji Demba Ka El Hadji Serigne Fallou Luc les deux acteurs Modou aman le président du CNG les membres du CNG les managers les lutteurs les anciennes gloires, les batteurs, l'ensemble des journalistes ici présents et tous les promoteurs qui son présents ici. et chers invités. fii bu ma fi teewee tey dama fiy teew ci double casquette Malick Thiandoum dégg naa la nga def seede yu rafet ci El Hadj man kenn duma seedeel dama fekkee dund pourquoi je le dis El Hadji Demba mu ngi may dégg di ma seetaan maa ngi moom dama bokk ak moom benn building US ñu koy wax building 184 Brahas Avenue between 150 151 kon il est ambassadeur d'abord revenu dans son cher pays pour être un capitaine d'industrie donc euh, c'est un modèle royuwaay ku jara sargal la ku jara toppandoo la te it ku nekk ñaan nga yàlla am doom ju mel ni moom kon Alaaji Demba yàlla yàlla yàggal taxawaayam suñu dikkee tey ci li nga xam ni moo tax ñu teew fii muy le lancement de KPI écoutez euh, Alaaji Demba Ka ne finit pas de nous impressionner ñëw na dem na US jàng na xool lan mooy développement mu takkaat ay bagaasam ñëw créer EDK pare fa ñëw gis na jolof ci kën pare gis ni war na def benn transfert d'argent et nag li ci gën a am solo mu ñëw xool fan la koy lancer choisir un événement boo xam ni suñu sport national la moom la askan wi bëgg mooy drainée du monde moom la ñëpp di seetaan ku bëgg a promouvoir dara fa ngay jaar muy làmb bi nga xam ni Wili suñu doom ku ni Wili wax El Hadji Lig euh, El Hadji Fallou Lig Nicolaï donc ñu ngi koy gërëm di ko sant ci choix boobu mu porté ci làmb pour lancer KP di wax sénégalais yi nag gis nga àdduna boo ci nekkee da ngay am royuwaay tubaab yi dëkk fii di ñu use nañ leen ko bañ refusons cela nan lañ ko mën a refuser mooy consommons sénégalais comment consommer sénégalais tout en appuyant les acteurs sénégalais qui innovent qui créent de l'emploi vraiment accompagne le développement de notre cher pays qui est le Sénégal kon nañu leen consommer sénégalais j'en profite pour lancer un appel aussi à ces capitaines d'industrie que bu ñu xoolee Luc Nicolaï mii tey créer un événement suba beneen promoteur créer ko beneen sénégalais jóge fële ni kii kat doomi dëkk bi la dëkk bi lay doxal mu ngi utiliser jeunesse bi mu ngi jàppale jeunesse bi kon naa ko jàppale ku def loolu Alaaji Demba Ka mais kon ñeneen ñi nga xam ne yor nañu ay entreprise fii te réew mi di consommer seen ay produits jël suñu dërëm bu ñu xëyee am suñu dépense jël ko jox ko suñuy soxna ak suñu ay doom ñuy jënd seen ay produits dafay jaadu ñoom it ñuy gestu làmb nañu sponsoriser li fi nekk ci ay promoteur loolu dafa war parce que promoteur bi mu mu néew mu bari dina utiliser ci événement bu nekk vingt lutteurs ku nekk am ci dépense tëggkat bi am lu muy yóbbu kii jaay gerte caaf am lu muy yóbbu kii jaay ndox am lu muy yóbbu kii jaay sandwich am lu muy yóbbu kon loolu dafay jaadu yéen a may dégg duñu ci dig di taxawal ci buntu bureau kenn ay responsable lañ ay kilifa lañu xool leen réew mi mu ngi leen di jariñ njaboot gi mu ngi leen di jariñ yaa xayti mu laa nag dimbali leen ñi nga xam ne ñooy organiser ay événement ñu gën a jàppale gën a yaatal champ d'action bi bu kiy tëggee Fatick kii tëgg Thiès kii tëgg beneen dëkk mais loolu day doxal réew mi loolu laa am ci lu may wax di féliciter encore Willy ci événement bi en collaboration avec KPI fu mu bëgg a dem yàlla na ko fa yàlla yóbbu. yàlla na ko fa yàlla yóbbu te it gëm naa ni ki nga xam ni moo porté produit bi muy El Hadji Ka yàlla dina ko ci jàppale parce que bu ko yàlla fayee xolam <coughs> euh, mbir mi du nax saay encore les de champions Sénégal sas na leen pourquoi sas na leen aujourd'hui làmb fi mu toll daf leen a soxla daf leen a soxla comment mooy que ni que vous soyez des modèles que vous soyez des garants de confiance par rapport aux investisseurs loolu ci yéen lañ koy xaar di ci Ama di ci Modou promoteur bi li mu war a def def na ko li ci des nag mooy ngeen dalal xelu doomu aadama yi ngeen xam ni ci tant de lutteurs yi nga xam ne ñu ngi ci biir làmbu Sénégal yenn la ci structure Luc Nicolaï ENCO choisir pour que ngeen bëggal askan wi yaxayti mu laana teg leen lépp ci yoon yal na yàlla dolli jàmm bravo Aladji Demba Ka bravo EDK bravo KPI non des na bi ci des Jolof Chicken Jolof Chicken yal na yàlla dolli jàmm amiin leen di gërëm di leen sant Cheikh Sarr El Hadji Boubacar Pape yal na yàlla dolli jàmm amiin collaboration bi rafet na na xol yi feex ñu boole xol yi télé yëpp ànd nit ñëpp ànd Sénégal qui gagne bravo merci. sunu mag nga ànd ak Luc Nicolas depuis 1999 lépp lu Luc mës sa def ci làmb yow yaa ci ànd ak moom kon boo toogee fii ñu jox la kàddu nga jël ko delloo ma ko loolu da nga rafetal rek ñu ngi la ciy gërëm di kontaan ci yow euh, di nuyu nag assistance bi fi daje yëpp di am contentement. wax ji sax mën na bañ a bari Cheikh parce que xam nga bés du tuut borom lay tollool man li ma bëgg a wax bariwul parce que wax ji bett na ma mais damay gërëm rek Demba Ka ci ñaari baat parce que waxuma sax li mu installé ci biir réew mi walla bitim réew mais dafa nekk référence pour la jeunesse africaine surtout nag jeunesse su Sénégal parce que lii am na solo li tax lii am solo mooy làmb dafa nekk secteur boo xam ne dafa nekk secteur de développement mu nekk secteur boo xamante ne nii également dafa nekk cosaan moom muy doomu réew mi yàlla dogal li mu dogal ci moom mu mënoon xalaat feneen mais xelam ak xolam yëpp jëm ci làmb mais egalement nag mu njëkke ko ci ndaanaan bële toog di Cheikh Fallou Luc Nicolaï waaye tàccu leen loolu waaye nga xam ne fierte la pour réew mi dama ne at yi ñu génni combat bi taxawoon na yàgg na ñu bari neewoon na ne combat bi dootul am ñu dund ay jafe-jafe yu mettee metti ay bundu xotal yu metti dund ay xat-xat yu méttee métti ma ànd ak moom depuis 1999 ñu organiser làmb fu ne je me rappelle keroog Lac de Guiers numéro 2 mu ngi ne la toog moo ba ba seen face à face ñu ngi ko def ca île de Gorée keroog chaloupe bi la ñu jël tous les acteurs de la lutte ngeen dem keroog foofu ngeen defee seen face à ñu organiser làmb fu ne mais muy nit koo xam ne li fi jaar ci difficulté yëpp masul onk masul yuuxu di sàmm diineem di sàmm ngorom ba yàlla tey dogal combat bi Sénégal yëpp waxoon ne du am tey jii ñu war a def nag lancement bi muy première face à te ñëpp dañu ne woon face à bi du mën a am kon président Luc ñu ngi lay gërëm di lay ñaanal yàlla sunu borom parce yow da nga bokk ci acteur yi nga xamante ne nii Sénégal daf leen yaakaar rawatina nag làmb ji nga xamante ne nii depuis 1999 yaa ngi ci taxaw di ko dundal waaye nga organise nag événement événement boo xam ne ay acteurs yu baree fi daje tey axlu làmb ñoo fi daje yax ya jëpp Yékini ngi nii toog ma ne c'est l'un des meilleurs lutteurs sénégalais de l'histoire parce que à part Abdourahmane nga xam ne moo dajeeg Souley Ndoye en 1943 à part Manga mi nga xam ne moo toogoon fii léegi def dix ans de carrière daanuwul à part Moustapha Gaye male toog nga xam ne c'est l'homme de la quatrième génération dama ne Yaxya Diop moo def ci làmb lu Abdourahmane deful lu Alaaji Taala Jaañ deful lu benn mbër deful ci biir réew mi fukki at ak juróom kenn mësu la ngi ci biir làmb waaye tàccu leen yaxee jo booy le waaw le 17 ba le avril muy soog a dégg muñal ma ñëw ma ñëw waaye yaxee bay ñu bàkk bi waay ah mu ne o fañ na ngaaro roga dem no kolum waaw waaw o fañin fañ fañ fañ cawa caca eh. di nuyu Luc Nicolaï Modou Lo Ama di wax ñëpp yàlla nañu wax amin suba ci heure bi senegal neex. di feetu di feetu. ñu leen loolu waay. ñaan nee amin waay. ñu am lu ñu mësul am lu ñëpp yéene ci xol yi doon ko xaar muy Sénégal jël coupe d'Afrique jëlaat ko encore kon ñu ngi félicité ñëpp di nuyu champion yi fi nekk nag di jël nuyoo bi yëpp teg ko si loxo suñu papa Manga 2 vraiment di nuyu waa axlu di félicité Dembaka bu baax ci lii mu def nii parce que ku ne xam na ne ñun comme ñaari casquette lañ fi taxaw Dembaka dafa nekk royuwaay ci réew mi dafa nekk quelque koo xam ne nii. vraiment li muy doxal man de xam naa ci dara parce que kuy wéet di waxtaan ak moom laa mu yéene ma lool am na benn histoire bu fi aman sax papa Ngagne Diagne fekkee na ko mu am lu ma ci wax ba ñu doxal ko mu nekk lu avance la lu bari ci ñun jeunesse bi képp koo xam na nii rek am nga yéene nga roy ci Demba Ka di nga développé bu baax a baax ndax Demba boo gisee li mu def ci réew mi indi na éducat ñu ne déet mu indi jëlëf ci kenn indi loo xam ne ni encore muy KPI bi di transfert d'argent vraiment dañ koy ñaanal yàlla mu dolli ci yeneen ak yeneen ak yeneen te mu jig ko ak population bi mu ci àndal ñëpp parce que képp koo xam ne ni nekk nga ci réew di jëriñ réew mi rek kon kooku dañ ko war a ñaanal yàlla ñu jàppale ko bu baax comme dafa guddi ñu gàttal kàddu yi di nuyuwaat li ko laa di ko xam ne ko bés bi dugg na ci ak bisimilahi rahmaani rahim yàlla nañ ko eggal ak jàmm ci darajaay sëñ Abdou Karim mi nga xam ne mooy sa yaakaar vraiment champion yi ñu ngi leen di nuyu comme li ñuy wax rek mooy ay royuwaay ngeen Modou Lo champion la Ama Baldé champion la kon lamb ji bu neexee yéen a ko war a neexal war ngeen a mën a def lépp mais ngeen wane bon exemple pour seen rakk yi topp seen ginnaaw làmb ji jëm ca kanam parce que bu ñuy wax làmb ci coow lay jëkkee ci coow lay mujjee mais jàmm rek la kon que le kàppey gan gi nga xam ni yegg si na di wax ni fi mu yegg see baax na fi mu yegg see dal na xel mbokk yi kon kàppey fa tubar fa kàll soxla bu taxaw kàppey dina ko pee soxla bu nar a kaw boroom kàppey dina ci taxaw waaye lépp luy xat-xat ak foo mën a nekk kàppey dana la ca fekk mbokk yi rafetluwaat jotaay bi di jaajëfal Luc Nicolaï dama ko wax ne ngërëm ñett la jërëjëf jaajëf ak jëre jërëjëfati lig ni ko laay kon jërëjëfati lanu lay wax ci sa taxawaay ci làmb ak li nga liggéeyal sa réew bokk na ci champion bu mag bi nga xam ni mooy sunu papa Mor Fadam ci mbaax ga ak yërmande ga bi mu bëree ak Mohamed Ndao Tyson ca Gambie ñu ne dañu ko war a leeral nga jël combat boobu indi ko senegal ngir bëgg sa réew li nga liggéeyal sa réew bokk na ci bi nu nee jàmm la nu bëgg ne drapeau de la paix nga jëli làbbe jamakun indi ko Dakar tëggal ko tàkkusaanu làmb gu mag sargal nag sunu kilifa sunu njiit Alaaji Sidy Lamine Niass mi nga xam ni sunu diggante ak moom dafa mel ni ànd uude ba ak buur ba uude ba dafa sopp buur ba ràbb dàll may ko buur ba sopp jëfu uude ba woolu ko ba mu ñëw sëf gëléem ak teraanga njukkal ko kon fa tubaar fa kàll ni nga ko téye rek noonu lanu la jàpp di nuyu sama ñaari jàmbaar yi Modou ak Ama Baldé waaw tàccu leen ndaa naanu jara tàccoo ngi nii gàcce ngalaama sama ñaari champion yi boo ne Modou Lo ne Ama Baldé fit dafay wuy si jàmbaar dafay wuy si fulla dafay wuy si fayda dafay wuy si ñu des ci Ama Baldé mbokk yi làmb dañuy wax ni bu dee garab gu taxaw la Pikine daf ci doon bànqaas bu rëy ndax sunu baay Papa Diop ndax sunu baay Fodé suba ndax sunu baay Falaay Balde olof ni doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dees na la ñam olof dellu tontu boppam ne métier bu dee ndono dañu koy sàmmee ngor ak jom mooy tax ba du réer kon ama gàcce nga laama dama wax ni champion bi bi mu ñëwee ci làmb wane boppam ñu topp ko ci yoonam keroog bi mu bëreeg Baye Pël daan ko ak lu làmb dañu nangu ne mbër feeñ na mu daan bébé Saloum dëggal boppam kii moo daan Balla Diouf kii moo daan Papa Sow champion bi toog moo daan Malick Niang combat boo xam ne nag fa tubaab fakàll ci la ko làmb gën bàyyi xel mu dugg ci tournoi TNT bëri ci ak Tapha daan ko Ama Baldé bëri ci ak ki nga xam ni mooy Zos daan ko daan ci guy gi kon ndaanaanu làmb la boo xam ni wane na boppam marqué na empreinte am tàccu leen ko sama gaañ mbokk yi kon kooku mooy sëlu bu ndaw gaañu ne déedéet sëlu bu ndaw màgg na ñu ñëw ci Modou Lo boobu nga xam ni boo ne Modou xel yi ne Roc des Parcelles boo ne Modou xel yi ne xarañ ndax lan jom ga jàmbaar ga ñeme bés ak àttan bés parcelle it làmb am fa cër ndax sunu papa Manga deux champion bu mag boobu nga xam ne ñu ngi koy jox cëram ak wàccuwaayam parcelle lamb am fa ndax sunu papa Ange Birahim Ndiaye ñuy jaar ci moom nag di nuyu ancienne gloire yëpp ndesaan Ange Birahim dafa am lu dox sunu diggante lu bari ndax dañu jaar ci yoon boo xam ni bi nuy jéggi bukk yi sàngoo dëru bay di nu fakkatal moo nu doon xàllal kon Baye Birahim yàlla yàlla guddal sama fan moom mooy muy champion boo xam ni bi mu ñëwee ci làmb dafa dëggal boppam dafa daan Paul Maurice waa làmb bàyyi ko xel kii moo daan Tafa Boy Bambara Modou mii moo daan Balla Diouf Cœur de Lion Modou Lo mii ndeysaan moo daan ki nga xam ni mooy Issa Pouye Modou Lo mii bëre ak sunu papa booy Kayre am ndam ci kawam bokk yi Modou Lo mii daan na Eumeu seen ñaari yoon ci làmb Modou Lo mii bëre na ak Gris Bordeaux am ndam ci kawam kon roi de arènes na ngi ni toog gàcce ngalaama tàccu leen Modou tàccu leen Modou Luc Nicolaï nga def lu rëy nag tëgg combat royal yow ak mars duguleet ndax nag yax Yaxya ni mi fi jóge ak Bombardier 28 mars la woon kon boo nu déggee le 13 mars suñu xel dafay dal ndax li nu naan bu siif neexul sippli du mën a neex kon li nga fi woon fa tubaar fa kàlla sama ñaari ndaanaan yi muy Modou muy Ama lii la làmb bëggoon lii la làmb doon xaar bés bi tey njabootu làmb yëpp kontaan nañ ci ñoo ngi leen di daloo di leen bàyyi ngeen nuyoo di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay du ñoo ngi lay nuyu Ama ñoo ngi lay nuyu Modou kàddu gaa ngi noonu bisimilah. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani ci yonent bi di gërëm ñaanal suñu waajur bu jigéen di fi nekk yàlla guddal fanam dafal ko wér ak waajur yi fi nekk yëpp ñaanal suma waajur bu góor bi jiitu yàlla yërëm ko xaree ko àjjana ak bépp waajur bu jiitu di ñaan waajur yi fi des yàlla guddal seen fan di nuyu Sénégal yëpp nag di nuyu assistance bi di jiital ci nuyu bi Père Manga 2 di nuyu Luc Nicolaï promoteur bu mag bi di nuyu les sages di nuyu amateurs yi di nuyu tey plateau bi dafa riche puisque ku nekk ngi fii di nuyu communicateur yi di ko di teg nio bi ci loxo suñu papa Khadim Samb di nuyu suñu mbokk leader en activité yëpp yu fi nekk di nuyu kër kilifa diine yu nekk Sénégal yëpp ku ci ne sa tur ak sa di nuyu 14 régions yi di nuyu waa diaspora bi di nuyu parcelle 1 ba 26 di nuyu tamit ñi ma àndal ñëpp ak waa Rock Énergie ba ci kanam incha allah. di sant sama ñaari waajur di ñaan sama papa yàlla na ko suñu borom xaaral àddina di ñaan sama yaay yàlla na ko ci yàlla bàyyi mu gën a fekkee seen yi di ñëw sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax di santaat sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax a baax di santaat sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax di sant njabootu sëriñ Fallou yëpp di sant sëñ Ateex Mbacke sëñ Tàkko sëñ Afia di sant njabootu sëriñ yëpp di sant sëriñ Saliou bu baax a baax maa ngi santaat sëriñ Saliou Mbacke maa ngi santaat sëriñ Saliou Mbacke di sant sama papa yi fi nekk ñëpp maa ngi sant palaatoo bi di nuyu sama adversaire maa ngi ko ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal sama doomu nday Maalo Seras yàlla na ko suñu borom defal jàmm naa ko ni nga ko bëggee woon muy roi des arènes maa ngi ñaan yàlla ko suñu borom mottali jërëjëf. Ama